إلى سرسارة إلى سرسارة إلى سرسارة قد خسدوا سيارتي فارخ دارني أو زارا sëñ Kosso maa maa ngi ko xam pour la première fois bi njëkk ànd ak moom ñëw euh, euh, Darou Moussi 1976 la woon bi ñëwee ak moom 1976 dem ndax ko gis Dakar boobu soo sama sama yaay ji tudd Marie Faye daf daf ñu daf maa réeroon parce que moo topp ci sama yaay moo sama yaay ñu bokk ndey ak baay mu mu yàlla def ñu wax ma ne mu ngi kër suñ Koso ma topp tànk nag ba di ko seeti foofu far fekk mu nekk kër Sëñ Koso mu ne mu ne ma nag kaay ma présenté rek ki nga xam ne këram laa nekk moom moom ma dénk këram wax ma ne diggante mag Sëñ Koso yëpp confiance bi mu am ci moom ak yëpp ma ne ko waaw léegi man damaa ñëw fii euh, stage élèves élèves gendarme léegi mu 73 loolu 73 la décembre 73 mu ne ma léegi euh, nañ dem ma présenter Serigne ma ñëw mu mu nuyoo ma ak Serigne Serigne Kosso pour la première fois c' était le c' était le c' était c' était avant avant la fin du mois de décembre daal. de de de de 1973. bi ma bi ma ñëwee foofu ba nuyoo ak moom ba pare mu ne ma na nga fi dellusiwaat ma ne ko nag dama dama nekk dama ñëw fii stage. moom moom ma sama bopp danaa fi toog ba stage bi jeex xëy na peut-être la fin du stage wala su ma amee bu ma indi rek mu ne ma heure boo amee possibilité pour ñëw rek na nga fi ñëw léegi yàlla def ñu dem ba nga xam ne stage bi passé nañ li gën a import importance ci stage bi mu am benn bés ma ñëw fa nag bi ma ñëwee dafa mel nii moom dafa xamoon ne maa ngi ñëw parce que dafa soxla si ne ko sama yaay ne ko dencalal waagaan yaakaar naa dana fi ñëw tey soxna si soxna si ne ko ah sëñ bi kooku yaakaar naa ne ci loxo la ne fii ak bi jeex waxoon na la ko fi mu ne ma defe naa dana fi ñëw tey ma ma toogee ba ay booru quatorze heures quinze heures ma ma tëb miir xam ngeen tëb miir lañ ko doon wooye boobu temps ma tëb miir ñëw ñu ñëw euh, kër ga ñoo ñëwee fekk mu ne ma mu ne ma ah yow de sëñ bi léegi la léegi la doon tudd sa sa añ nii moom moo joxe ndigal sax nañ nañ nañ lay dencal añ alors ma ma daal di añ ba pare bi ma añee ba pare mu mu ne ma léegi euh, màggalu Sarsara màggalu Darou Moussi bu may demati nañu ànd ci diggante bi nag sama stage jeex na ba ma dem application ma dem application euh, est bi màggal googu jotee ñëwuma màggal bi mu décidé boobu ñëwuma woon parce que daa fekk man man man dem service mu moom moom sama bopp mais la année suivante muy soixante soixante seize mu ànd ak moom ñëw fii keroog laa njëkk gis sëñ Modou Abal bi bi bi ma bi ñu ñëw maanaam man ak sëñ Modou Aballa moom sëñ bi moom moo ko présenté moo ko ne kii sama sama xarit la sama taalibe la Magane Faye la tudd gendarme la man nuyoog sëñ bi ñu ñu daal di ànd dem kër dem kër sëñ Koso ca déwén sa ñëw ma ci déwén jéeg sa ma ñëw bi ma ñëwaatee ñu fekkaat sëñ Modou fi mu toogoon ci digg dëkk bi ci digg kër gi ci boobu temps néeg ñax bu mag moo fa newoon ci digg kër gi. bi bi ma ñëwee nuyoo moom ba pare maa fekk mu toog ni chaise sol ni benn turki bu weex léegi ñu nuyoo moom mu ne ko sëñ mu nuyoo mu ne ko kii sama taalib bi ma leen wax sama taalib sama taalib bi gendarme bi la mu daal mu daal ma daal jox la mu jël sama loxo jël loxo sëñ ko boole ñu nee ni ànd leen ñu ànd dem kër ga bi ñu ànd ñu nekk ba ma nekk fa ba ay minuit boobu temps horaire bi deux heures lay départ lay départ Daaru ji ñibbi Dakar ba booru deux heures man ma ne sëñ bi kon man maa ngi ñibbi mu ne waa kon baax na mu ñibbi mu ñibbi ma ñibbi ma ñibbi euh, soixante dix neuf ma ne ko fin soixante dix huit sax laa ma ne après màggal bi rek ma ñëw fa benn samedi ma ne ma ne ko sëñ bi ah, man daal dama bëgg dama dama bëgg a jébbalu mu ne ma ah amul problème boo bëgg a jébbalu de moom da ngay bàyyi ba samedi ma boole ak koso koso Diop daakal mu mu yóbbu la ci oto bi nga boo demee daal mu si nga seet sëriñ bu la neex. mu yóbbu la fa nga jéblu ma ne ko du ma la du la paase yow du ma la weesu yow yow doy nga ma mu ne ma kon kon baax na foofu noonu laa xamante ak ak Serigne Koso léegi yàlla def nag ñuy dem mu aussi nit ku baax ku mu xam rek fexe fexe na ba ma xamante ak moom ba ci shérif bii keroog dama ñëw kër sëñ bi benn samedi ñu añ ba pare. man xaw ma ne Serigne baa ngi ci mu ne ma mu ne ma am na ku ne ci gan gu ne ci gannaaw kër gi demal nga nuyoo moom boo demee na nga nuyoo moom xamante moom walaay ma ma ma dem ci gannaaw muy Serigne Aba Aba Abiballah ma demee fekk ci gannaaw ma ñëw nuyoo moom mu ne ma ñoo noo tudd ma ne ko man waagaan laa tudd mu ne sant ma ne ko fay séeréer nga ma ne ko mu loo loo bokk sëñ ko ma ah, man de sama sëriñ la rek mu ma am nga sa sëriñ sa sëriñ bi baax la nangam nangam ba ñu wax ba mu yàgg mu ne ma léegi nan def nii comme yow sa xarit suma xarit la sa sëriñ suma sëriñ la léegi nañ def nii nañ def nañ def contrat man ak yow lii ngay liggéey nii soo ci bëggee réussir da nga may nangul ñett yi ma nangul la ñett yi waaw moom moo dee moom moom moom sërif moo ma ne ma ne ma sëñ ko sa la suma së di sëriñ man muy suma xarit di suma sëriñ dinaa bëgg nag soo soo nga nangul ma ñett yi ma nangulee ñett yi ma ga ma gàddu la ñetti yi moom moom sërif bi mën na ko ñett yooyu yàlla mu ne ma benn bul farku tooñ saxal ci dëgg te te bul bul bul jaay nit doole boo ko defee ma garantir sa carrière ba mu jeex te dalatul xuri benn ñaar jàmm rek ngay am bu ma ba sa carrière di jeex ñett avance fu sa fu di sa grade yi mën a yem da nga fa da nga fa yegg loolu loolu ma service bi te loolu itam gis naa ko léegi aussi ma ma aussi ma jàll ci li tax aussi ko su marqué ma mooy bi ma demee bi ma nekkee jeune jeune gradé moom bu xesee ba far fenn de moom day wane carrément dafa far maanaam du nëbbtu fu muy far moom du ko nëbbtu ndax dama jógee dañ maa affecté mooy jógee oriental en quatre vingt quatre vingt quatre vingt quatre vingt cinq septembre 87 le 17 septembre 85 laa jóge laa jógee euh, Jalakoto ji jëm jëm ci Darou Moussi bi ma ñëwee Darou mussi euh, dem nuyu jiwoo ne ko ne ko ñëw naa mu ne ma um, baax na man man demoon naa ba ci général bi pour wax ko ndax ñu affecté la Darou mu ne ma déedéet loolu gën loolu gënul moom moom xam naa ne loolu duma ma gënal man bu man gendarmerie buggul ngay ñaanal nit affectation parce que day feeñ sa digganteeg sa sa say kilifa parce que boo nekkee fen day day dem ba ñu jàpp ne li mu li li li ko kii ñaanal moo tax nangam ak nangam mu ne général bi ne ko waa bàyyi rek ban danaa danañ ko affecté léegi ñu affecté ñu affecté man Darou Moussi bi bi ma ñëwee daa Moussi ma nekk fi 84 85 86 bi ñuy defee centenaire Lat Joor défilé centenaire bi premier centenaire bi ñu bi def téeméeri at Lat Joor bi bi mu nelawee ñuy def téeméeri at yi fii ci ci ci deqale man de ma def service ba mu jeex ñu affecté ma caaro yi ma woo ma woo ko téléphone ko mu ne ma ah, da dangaa bëggul caaro yi ma ne ko déedéet ma ragal man la bañ bañ ma fenn mu ne ma ah, kon baax na ma nga ñëw bi ma ñëwee service pour wan la ne moom ku ma ku ma ànd ak dalay faral dafa bàyyi ba ma ñëw ba jël service caaro yi 86 bi ma ñëwee bu jël sa février 86 laa ñëw Thiaroye bi bi ma ñëwee ba jël jël service ba pare moom dafa daal di ñëw benn bés benn takkusaan suuf mu ànd ak euh, kii Alaaji euh, Kara Diop euh, Koso Daakal ak ak ak ak keneen daal xam nga dama xamul Birame xam nga ku mu doon ñu ànd ak moom ñëw ñëw boole 5 heures rek mu ñëw gaare ci brigade boobu mu ngi sol mu ngi yoroon naasam bu bu ñuul bu mot boobu moom la indi. bi mu ñëwee dugg ci brigade bi ci biir brigade bi caaro yëpp fax ne waaw sëñ Kosso lu mu wax ci biir brigade bi gars yi yëpp ñëw di ko di ko nuyu si. wo euh, tudd ma de tudd gumba ba léegi nit ñi ñëw di siyaare di siyaare mu def nii lu ko waa jox rek mu def ci kawam lu ko waa jox rek mu def ci kawam ba ba nit ñi ba kër kër yi wàññeeku mu ne léegi mu ne léegi kenn ci gars yi woo wool ma commandant brigade bi boobu temps ku ñuy wax Kayre Mbay mooy mooy suma commandant brigade mu kaay la ñëw nuyu ko ah sëriñ bi xam nga fekk nañ ñu xamante ñoom ah mu ne ko man de dama am suma taalibe bu ne fii ci yow ma ma bëgg ma bugg ma doon ko nuyu si mu ne ko kan la mu ne ko mu ne ko waaw mu ne kooku mooy suma adjoint mu ne ma wol ma ko xam nga moom xam na xam na xam na waaye dafa bëgg koo jaarale ci yoon ko léegi kaay la yoon yónni ci man ma ñëw nuyoo ak muy muñ ma nuyoo moom mu ne ma ah na nga ma ne ko maa ngi fi fekk na dama ko wax ne caaro yi metti na. loolu moom bi ma ko wax bi ma bi ma rejoindre Thiaroye loolu laa ko njëkk a wax ma ne ko dëgg dëgg man ki ma remplacé dañ ko fay agressé mu ne ma yow yow doo ci bokk ba nga ñëw rek bi ma ñëwee nag ba ba ba ba nuyoo ma ba pare mu daal def ni sama sama saareem bi ma soloon mu ubbi ubbi poos bi ci xaalis bi ma ko joxoon bi ma ko joxoon yëpp mu jël ko def ko sama poos ne ne waa dëkk bi nag gis ngeen kii mooy man may moom. su ngeen ko mënee jàppale ngeen jàppale ko su ngeen mënta jàppale ma ñaanal ko mu dem feneen waaye na ngeen xam ne foo ko gis rek maa ngi ci gannaaw xam nga kon kooku dèjà kooku garantie la nekk naa caaro yu cinq la laa fa def cinq yu mat yoo xam ne amu fa benn problème te boobu temps adjoint yi ca amul benn adjoint yi caaro yi bu fa def ñaari at yu problème amul kenn man maa fa def cinq yu mat yoo xam ne amu fa benn problème ma jóge caaro yi dem yaraax bi bi bi ma jógee bi ma jógee bi ma jógee yaraax ma ñëw ma ma dee si caaro yi daaru musi gii comme commandant bi kat jógee daaru musi dem yaraax dem dem Bambey Bambey aussi amul heure bu mu fa ñëwut heure bu ñëwee daal Bambey rek dana dana mu day jaar ba ci buntu brigade ñoom ko yëgal mu yëg ñu ànd li muy dox ci biir Bambey yëpp man maa koy fekkee te te fekk may commandant brigade bi waaye moom moom xool loolu yëpp xool ko day bëggoon waa dëkk bi ne moom moom daal mu ngi sama gannaaw loolu loolu daal moom loolu moom la doon wane pour war la ne sëñ Koso moom bu xasee ba far fenn moom moom moom amu ci amu ci benn amu ci sago nag aussi boo bu wax ba nga dégg mu déggal ngay waat ba ne barke sëñ Tuubaa day day déglu day taxaw déglu ba xam foo jëm bu dee loo xam ne lu mu war a war a intervenir ci saa si la koy def loolu moom mooy li nga xam ne mën naa ko joxe comme euh, euh, relation su ma diggante ak ak sëriñ su ma sëriñ la woon waaye nag aussi sama xarit la woon sama xarit la woon amul heure bu ma woowul ci téléphone ne ma naa ñëw naa ñëw kër naa naa ñëw kër ga benn bés maa ngi fàttaliku man ak Omar Sarr mi nekkoon sous-préfet ak sëñ bas Abdou Khoudous mi nga xam moo nekkoon porte-parole boobu sëñ Abdou boobu mu ngi dund ñun ñett ñëpp mu ñu te mu woo ñu reer invité ñu reer te kenn yóbbuwul ak sa morom léegi man maa njëkk man maa njëkk a yegg si ba ma yegg seen nëbër mu loo bëgg a reere man ko man si man ci rek moom laa nam mu ne moom lañ togg reer ni suuti Omar Sarr ñëw Omar Sarr ne ko mu ne Omar Sarr Omar Sarr loo loo bu ñu togg toggal a reer Omar Sarr ne ko man daal suñ man damaa nam dama nam miis yi mu ne ko moom lañ togg së <laughs> së sëñ Bass yegg si mu ne ko sëñ sëñ Bass loo bëgg loo bëgg a reer mu ne ah bi loo reer rek baax na mu ne ah kon baax na yow dañ mën a jubóo yow suma rakk yow dañ mën a jubóo loolu wax sëñ Bass ñu toog ndekete dara lañ toggul da dafa bëgg xaar ba ñëw ba pare bu ba mu xam ku ne li nga bëgg ci diggante bi mu am ku ko woo téléphone ne ko euh, benn benn congélateur bu nga ko doon may ne diw da indi naa la fi congélateur moo ma ma ma yóbbu ko fan mu ne ko yóbbu ko kër ga Omar saar dégg wax jooju Omar Sarr fa la ñu bàyyi ca kër ga boobu temps ñu ngi koy soog a jox benn Isuzu Isuzu bu bees benn euh, mooy Isuzu yi ñu doon jox sous-préfet yi ñu jox ko benn tax keroog mu ne kon deuxième jour jour bu mu génne oto bi Omar Sarr dégg loolu taal oto bi ci guddi gi. dem na ndakaar jëli congélateur bi ba indi ko indi ko Sarsara te bi parewul <laughs> donc pour woon léegi bi bi bi bi ñu dajee foofu ñun ñun ñett yëpp mu mu ne sëñ Bass léegi dama bëgg ñu ñu waxtaan léegi euh, mu daal di ne kii hmm, benn photographe bu fa newoon bu santoon am na benn photographe bu santoon bu dëkkul Daaru Manaan moom la wax ne ko léegi dama bëgg nga nga photo moom sëñ bas sëñ sëñ sëñ Koso ngi toog nii sëñ Bas Abdou Khoudoss toog nii ak Omar Sarr toog nee ñi ci kanam bi ñoom ñett man ma taxaw seen gannaaw mu photo yi ba mu ne xam nga lu sama def photo bi mu ne mu ne preuve laa bëgg dama bëgg nag léegi yéen ñetti yéen ñetti ñii ngeen booloo def nii sëñ Abdou mii mandaam bi bu kiyam bi euh, xalifaam gi bu mu am benn benn benn jafe-jafe su seen ko defee su ngeen gestoo di ngeen ma gis waaye su fekkee ne nekkalu leen fi sëriñ bi man su ngeen gëstoo man du ngeen ma gis du du ma leen far léegi moom da ngeen mën a bokk yow yaa bi ki yor ma yor sécurité bi ki ma yor baatu sëriñ bi yéen ñett na ngeen ànd su ngeen àndee su ngeen gëstoo gis waaye su ngeen àndu su ngeen gëstoo man du ma gis loolu suñ suñ loolu aussi suñ koso def na ko suñ suñ diggante ak ak ak le service bi ak ak ak ak ak relation ak nit nit ñi quoi. ila sarsara ila sarsara ila sarsara xat xasadu siyaarati faara xudaarani aw saara